mbégtee jàmm waat ak comme ni ñu koy defee saa su ne si week bu jotee rek ñëw ak ci li ñuy dippee semaine dose dooree ko nag ak mbirum Ousmane Sonko mi nga xamante jamono ji sax moom moo ngi lëmbee ci fii ci diwaanu Sénégal ci digganteem ak aji saar mi nga xamante ne sax daa tegoon ci tuuma ci kow ndoddam ne rek da ko sàkku ci benn salon de a ñu beauté plus massage ba nga xamante ne sax mu ngi ci diwaanu ndakaaxu Njaay li ni mel sax dal di jur coow ba rek jumtukaayu xarala yu yees yi nag ku ci nekk yëy yàbbi jëmale ko nag ci li nga xamante ne Euh, mom modi rek mbirum euh, Ousmane Sonko ak euh, Adji sar mi nga xamante sax ba tay pour pour mu don nak mbir mo xamante dal dina doy war bu baakha a baax ci nak non rek ci la Ousmane Sonko dal di sax genni momitam di def ap riposte manam rek di indi ay leral ci li nga xamante mom lañu tek ci ndodam ci la sax xamle won rek buñu teggé li di rek malaanu kiiraayam manam immunité parlementaire rek dina dem wuyu ji ñi nga xamante rek ñoo di wa mbaxana doonee ben ngir rek ñu mëna leral li nga xamante mom modi di mbir mi waaye nag euh, laata rek Ousmane Sonko di dem nag euh, wuyu ji nag ci nag takku der yi rek demee ci këram nekkee ni altine bale ñu génni nag ngir rek jéem ko jëli wa itam jéem ko protéger mu doon nag mbir moo xamante ne sax dal dina jur coow ba rek partisan yi nekk ci Ousmane Sonko ni rek duñu ci dal benn yoon ci naka noonu nag la ñu fa ay jàmmarloo yoo xamante ne dal dina tàng lool ci diggante takku yi nag ak militant partisan yi nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko ne rek dañoo gis ne état bu Sénégal dafay jaay doole jàppale ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di askan gi rawatina sax ñi nga xamante ne itam ñoom ñoo nekk ci gujeeg politique bi ndax rek euh, ay euh, jàmmarloo yoo xamante sax moom la ñu nemeeku ca fa nga xamante ne rek moom moo di cité kër euh, góor gi mu altine ba la ñu génni mu tàngoon lool ci diggante partisans yi nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko mu doon nag mbir moo xamante ne dañuy desandi ba tey si coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr mi nga xamante ne da ko teg ay ay tuuma ci li nga xamante ne moom moo di ndoddam moom Ousmane Sonko sax lànk ba tëdd ca naaj ba rek rek euh, li ni mel dara amu ci mos moom musta rek euh, yegg ci kow ki nga xamante ne moom moo di rek Adji Sarr mu mel ni sax Ousmane sonk bi muy def euh, li di déclaration rek dafa joxoñoo baaroomu tuuma ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di état bu Sénégal mbirin mi nag dal di jur coow fii ci réewum Sénégal ay wa ñu des ba tey ay ci coowal usmaan Sonko ak Adji saar waaye nag boobulee toogaanu ñaxtu ba nga xamante ne mu ngi amoon ci cité kër euh, góor gi ba rekk dem bi ak dikk bi daal di gàllankoor ñuy yémeeku fa ay taalante ay pëno waaye tam ay sottante ay xeer bojjante ay lii di lacrymogène euh, diggante takku der yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk rek ci ginnaaw Ousmane Sonko ci la ñu teg loxo lu toll si ñeen fukk ak juróomi manifeste yoo xamante ne sax dañu leen di toppee loo xamante ne dañu rek salfaañe loi bu Sénégal ak euh, jamono ji ñu nekk euh, ci couvre-feu ñu gis ne rek euh, ña nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci ginnaaw Ousmane Sonko dal dinañu rek lank ndaare tëdd ca fi nga xamante ne moom moo di ca naaj ba rek ne du bàyyi état bu Sénégal dal di yóbbu rek kii di rek Ousmane Sonko gendarmerie ak police waaye itam lépp loo xamante ne rek ñoo di takku der dal di wàcc fa nga xamante ne rek moom moo di cité kër góor gi ngir rek yóbbu Ousmane Sonko ci nag noonu sax ñuy xamle ne ñi nga xamante jàppoon nañ nañ ñu xayma leen ñu toll ci ñeen fukk ak juróom euh, fukk ñaar fukk ak benn daal dinañ leen bàyyi rek ba ñu delluwaat ci seen bu njaboot euh, ci li nga xamante ne moom moo tukkee woon ci ab toogaanu ñaxtu ba amoon ci cité euh, kër góor gi moom sax Ousmane Sonko ci alxames bi ñu génn rek dem nañu ca assemblée nationale ngir rek teggi malaanu kiiraayam ngir mun koo rek déglu digganteem ak Adji Sarr mi nga xamante ne da ko porte plainte maanaam rek daa teg ay tuuma ci ndoddam ne daa yegg ci ko mu doon daal dina uh, doy waar uh, fii ci réseaux sociaux yi maanaam jumtukaayu xarale yu yees yi uh, ku ci nekk rek yaa ngi yëy yàbbi jëmale ko ci li ni mel ñu des ba tey si coowal Ousmane Sonko ak kii di Adji Sarr mi nga xamante ne daal dina teg ay tuuma ci ndoddam ña nga xamante ne ñoom ñoo yeewoo ca cité kër góor gi ñu jël seen i di ko taal waaye itam di taalaale seen i kër mu doon mbir moo xamante ne nag daal dina métti xol ñi nga xamante ne ñoom ñoo yeewoo ca cité kër góor gi ba rek ñu am reportage boo xamante ne daal dinañu ko jagleel ñi fay yeewoo am na sax ñu àddune rek rek jii di def ay manifestation dal di taal nag ay pëno ba taalaal rek oto jàmbur yi waaye itam di yàqati rek këru jàmbur yi daal di nañ leen sàkku ci eh, gouvernement bi mu indi ci ay eh, leeral waaye itam eh, teg ay daan ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo doon def boobu la ñaawteef mu doon ay kàddu yu bàyyeekoo ci askan wu nekk ca te kër góor yi ca góor gi ca diwaanu Ndakaaru Njaay aywa ba tey ñu des euh, ci coowal Ousmane euh, Sonko mu mel ni sax moom moo lëmbee àdduna bi moo lëmbee diwaanu Sénégal euh, jamono ji nag ñuy wax ak yéen ña nga xamante ne sax ku ci nekk yaa ngi yëy yàbbi ci li ni mel ba tax na rek kii di sëriñam di Cheikh Abdou Mbacké marabu bi nga xamante ne sax moom moo nekk marabu bu Ousmane Sonko bu leader bu Pastef dal di nag génn di sàkku rek ci ki nga xamante ne moom moo di xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké ngir ngir rek mu indi ay saafara ci li nga xamante ne moom moo di rek boobu lee mbir ci diggante dox ci Ousmane Sonko ak Adji Sarr waaye itam ci diggante dox ci usmaan Sonko ak état bu Sénégal bi nga xamante ne sax moom sëriñam dafa jàpp ne rek dañu ko jaay doole waaye itam neewal ko doole bu baax a baax moom sax bi ñu ko dalalee rek ci émission bu ñuy wax nekk jot na TV euh, ci bile site internet waaye laa sax bile télé bi nga xamante ne jot na TV la ñu koy woowee ci la ñu ko dalaloon moom mu yëkkati ay kàddu di xam leen ne rek Ousmane Sonko autorité yi nekk nekk ci diwaanu Sénégal wa illa gouvernement bi dañ koo bëgg a rek euh, jàpp ngir xañ ko ay àq ak ay yelefam jaay ko doole ndax rek dafa nekk ku jekk politique boo xamante ni rek jàpp nañu ne rek moom moo teree nelaw mag Macky Sall aywa ba tey ñu des ci coowal Ousmane Sonko waaye nag euh, bi la yoon oustaz Modou Fall li ñuy àndal mi nga xamante ne sax euh, mu nga euh, def ay émission yu bëri rek ci fii di diwaanu Sénégal moom moom sax dal dina addu bu baax a baax ci affaire usmaan sonk ak aji Sarr mi nga xamante ne sax daa teg ay tuuma ci ndoddam muy xam leen ne sax ana lan moo tax xale yu jigéen yi léegi doy waar mun nañoo yàq sa àdduna ci ab diir bu gàtt mu tax na rek muy ñaaxaale ñi nga xamante ne ñoom ñoo di rek góor ñi ñu gën a vigilant ci li nga xamante xamante ne moom moo di mbir yi ak relation yi ñuy amal ay ak xale yu jigéen yi nga xamante ne ñu ngi ci réew mi rawatina sax ñu mel ni aji Sarr mi nga xamante ne jamono ji dal dina rek yee fitna uh, ci réew réewum Sénégal ci digganteem ak Ousmane Sonko mu doon ay kàddu yoo xamante ne mu ngi bàyyeekoo ci Modou Fall mi nga xamante ne sax mu ngi ñaaxaale itam xale yu jigéen yi bu baax a baax ngir rek ñu bàyyi ana lan la ñuy def rek ngir yàq doomu aadama mu doon mbir moo xamante ne nag uh, képp ku yeewoo ci mim réew nag uh, wax ashadu laa war nga ko war a moytu ndax rek yàq doomu aadama nekk na loo xamante ne rek jarul ñu koy rek yaatal fii ci réew réewum Sénégal ndax rek fii ci dëkk bi dafa nekk dëkk boo xamante ni rek dëkk diine la waaye itam dëkk dimbalante la ak réewum teraanga ba tey ñu des si Ousmane Sonko coowam ak ki nga xamante ni moom moo di Adji Sarr euh, jamono ji ñuy wax ak yéen nag ci addu di maître El Hadji Diouf nga xamante ni moom moo di l'avocat du peuple moom sax dafa solal mbubu avocat ki nga xamante ni rek moom moo di Adji Sarr di xam leen ne sax Ousmane Sonko dafa waroon naa def ni rek kii di rek euh, Bougazeli mi nga xamante ne sax ba ñu teggee ay tuuma ci ndoddam dafa demoon rek assemblée dal di rek démissionné ci li nga xamante ne moom la ñu ko dënkoon ngir malaanu kiiraayam bi nga xamante ne moom moo koy protéger euh, ci li ni mel sax moom Ousmane moom ki nga xamante ne moom moo di rek maître El Hadj Diouf l'avocat dal di nag yëkkati ay kaddu yu ñagas jagleel ko ki nga xamante ne rek moom moo di Ousmane Sonko di xam leen rek moom Ousmane Sonko foogutoon ne sax li ni mel dina ko bàyyeekoo ci moom bi nga xamante ne rek Sénégalais yi teg nañ ko gët waaye ñu ëpp doole ci askan gi rek ñu ngi koy may nopp saa su ne muy xam leen ne sax usmaan Sonko dafa war a def test ADN ngir rek ñu firndeel moom moo yegg ci ko ndaw si am déed ay wa ñu des ba tey ci coowal Ousmane Sonko mu mel ni sax ba tey pour euh, pundeegul ci digganteem ak Adji Sarr ki nga xamante ne sax moom moo di Moustapha Diakhaté moom moomee daal dina àddu nag ana lan la wax moom Moustapha Diakhaté ñu may ngeen may ñu nopp tuuti rek ñu daal di ko yaatal moom Moustapha Diakhaté nag àndul benn yoon ci li nga xamante ne moom moo di mbir mi ñu koy toppee waaye itam àndul benn yoon ci ñi nga ne ñoom ñoo doon amal ay toogaanu ñaxtu ca fa nga xamante ne moom moo di cité kër góor gi ba rek taali ay pano di yàq itam économie bu senegal maanaam suñu koom-koom doon mbir moo xamante ne nag ay violence la ñuy nemmeeku maanaam rek ay euh, saagante ay waxante ju ñaaw waaye itam ay joxalante baaroom tuuma li ni mel mel ni Touré ak Male ci réew mu Sénégal mu mel ni sax ñi nga xamante ne ñoom ñoo di askan gi war nañoo mën a bàyyi xel bu baax a baax ci li xamante ne moom la ñuy yàq ndax rek fii Sénégal ñun ñoo ko moom tey rek lu ñu yàq tey suba dañu koy soxlawaate aywa ñu wax leneen ginnaaw bi ñu bàyyee rek euh, wa ilaa ñu wax ba tey desandi ci coowal Ousmane Sonko mu mel ni sax jamono ji ci réseau sociaux yi ñu ngi jot ne rek ay xibaar xibaar yu bees tàq ñuy xamle ne rek am na ñoo xamante ne ñoom sàkku nañ wa illaa xam nañ ne rek Ousmane Sonko dañu ko tegal ndegu sirax bu fi ñuy wax ak yéen sax am na ñoo xamante ne ñu ngi jot di wadd par benn benn ci coowal usmaan Sonko ku ci nekk rek ñu naan yow la ku ci nekk ñu naan yow yaa waral li ni mel mu doon nag mbir moo xamante ne dañuy bàyyi ñun waa Kajom TV yoon rek mu def liggéeyam ci boobulee mbir ndax rek Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñoom ñëpp dañoo nekk ñoo xamante ne rek doomu Sénégalais lañ aywa dañuy wax leneen gannaaw bu ñu euh, wonee ginnaaw mbirum cool Ousmane Sonko dem nag ca diwaanu Touba ca dëkk bu sell bi nag ci atum 2019 ñaar fukki fan ak benn ci weeru euh, février bi nga xamante ne sax génn nañ ci euh, mun taxa Mamour Mbacke di ab xale boo xamante ne rek ay atam ñu ngi ko xayma mu toll si ñetti at képp dong bi ñu koy sax enlever maanaam rek muy réer ay mbokkam bàyyeekoo ci diggante kër maamam waaye itam wara wuy ji rek dem ci kër papa parents yi maanaam ay waajuram ku góor ak ku jigéen ci lañ ko dal di enlever mu doon mbir moo xamante ne nag ñu ngi ko nemeeku ca diwaanu Touba euh, li nga xamante ne sax moom moo di boobule mbir sax dal di woon nañ ci joxo ñaale baaroomu tuuma ab marabu euh, politique di wuyoo rek ci Modou Bara Mbacké Dolly mi nga xamante ne rek dañoo xamle woon ne rek lu jiig njaag moom mooy njaag nekk responsable bu l'Alliance pour la République ñu di ko dippee APR foofu la ca diwaanu Touba moom la ñu joxo ñooñ baaroomu tuuma rek ne moom moo jël xale boobu dal ko nëbb jan tant bi waaye nag bu ñu sukkandekoo ci suñu naataango yi di libération am na sax loo xamante ne na dina rek euh, bees ci li nga xamante ne moom moo di boobule mbir ñuy xam leen ne sax euh, convention de la division investigation ñu di ko dippee rek euh, dikk ñoom ñooñee sax dal dinañu déglu woon ki nga xamante ne rek moom moo di Modou Bara Mbacké Dolly mi nga xamante ne sax dañu ko rek tuumaloon ne rek daf dal di ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo enlevé boobule xale mu doon nag mbir moo xamante ne du guleet ñu di ko nemmeeku fii ci réewum Sénégal daal mu doon mbir moo xamante ne sax daal dina doy waar lool ku ci nekk rek ci jumtukaay yu xarale yu yees yi yaa ngi yëy yàbbi jëmale ko ci boobule mbir ñu wéyandi rek li nga xamante ni moom moo di rek euh, semaine buzz ba tey wax ci mbir mu doy waar ba nga xamante ne mu ngi am foofu foofule ca diwaanu euh, Casamance mu doon sax mbir moo xamante ne dañoo bombardé rek après requête bu nekk ca MFDC mi nga xamante ne sax armée sénégalaise moom moo ko def ñuy xamle ne sax mouvement séparatiste de la euh, Casamance ñu di ko déppee MFDC ñoom ñoo ñee sax nekk nañ ci position boo xamante ne daanaka rek dañoo xañ ña fa yeewoo seen àq ak seen yelleef waaye nag bu ñu sukkandiku ci li mel juróom-ñaari fan ci weeru février atum deux mille vingt et mu mel ni sax daj dinañu jeexal lépp loo xamante ne rek moom moo di ay jafe-jafe ci boobule mbir moo xamante ne ay rebelle ñoom ñoo fa basé wu ca dëkk bi ñuy wax rek jàkkaay nekk ca commune bu Djinaki nekk itam ci département bu biño na mu doon mbir moo xamante ne sax képp koo xamante ne rek dal di nga yeewoo ci boobule gox mel ni sax jàmm ja nga xamante ne moom la ñu doon sàkku ca Casamance mun nañoo njortu ne am nañ ci lu toll ni tuuti tuuti ngir rek askan nga fay jàmm ak salaam ay aywa dañuy wéyandi li nga xamante ni moom moo di semaine buzz waaye nag bila yoon dañuy dem ci diwaanu Kolda ana lan moo xew ca Kolda ab doom xale bu jigéen boo xamante ne ay atam bu ñu ko xayma mu ngi toll rek si ñaari at képp dong moom la fa ab lakk-lakk dal di rek jël bakkanam bu ñu sukkandekoo nag ci information yi nga xamante ne sax mu ngi bàyyeekoo ci immédiat di suñuy naataango xale boobu la sax ñàkk na bakkanam ci ab lakk-lakk bu doy waar boo xamante ne rek mu ngi amee ci dëkk bi ñuy wax naa nekk ca département bu Medina Yoro euh, Fula nekk ci région bu euh, Kolda mu doon nag mbir moo xamante ne dal dina doy waar lool bu ñu sukkandekoo ci suñu naataangoo di waa Libération ñu ngi xam le ne sax xale boobu la rek ay atam mu ngi toll si ñaari at képp dong dal dina nag lakk ci ab flamme bi nga xamante ni rek moom moo amoon ca boobule gox nag mu doon mbir moo xamante ne dal dina doy waar bu fi ñuy waxle bu fi ñuy xamle nii sax ba ñu toll nii sax xamaguñu ana lan moo sooke rek boobule lakk lool ci xol ay waajuram waaye itam eh, képp ku yeewoo ca diwaanu Kolda ay aywa ñu wax ba tey des si ay musiba waaye nag bi la yoon dañuy dem ci Medina Yoro Fula ana lan moo fa xew ab jàngalekat boo xamante ne rek mu ngi nekk ca Saare Moussa Yel nekk bi nga xamante ne rek ci boobule gox nag dañu ko porté disparu maanaam rek dafa réer nekk ca mbooy ba tey ñuy wax ak yéen rek kenn gisu ko moom moomee sax mu ngi doon jàngal rek ci école primaire bu nekk ca sa ca Saare euh, Moussa Yel nekk rek fa nga xamante ne moom moo di ca boobule gox nag ci Medina Yoro Fula ñuy xam leen ne sax boobule jàngalekat euh, fi mu bàyyeekoo rek moo di ci Kaolack euh, ndangaan di wuyoo ci M Ndiaye moom moomee sax la ñu porté disparu jamono ji sax ñuy wax ak yéen bu ñu sukkandekoo ci ñi génnee boobule information ñu ngi xam le ne sax moom moomee yaramam dafa sutante woon maanaam rek dafa nekkoon ci ay feebar ci naka noonu lañu ko jël rek euh, yóbbu ko ci ay mbokkam ba ñu faj ko waaye nag dafa wëñeeku woon ci boobule gox nag ngir rek jàngale waaye nag bu ci suba rek ci la dal di réer muy dem mu doon nag mbir moo xamante ne dal dina doy waar jamono ji ñu ngi sàkku rek képp koo xamante ne gis nga kooku kookule rek nga dal di ko indiwaat ca fa nga xamante ne moom moo di ca diwaan nga mu nekkoon ca fu la Yoro waaye itam nekk ca dëkk ba nga xamante ne rek moom la doon jàngale ndax enseignant boobule rek daf dañu koo soxla ci fi nga xamante ne moom moo di ci réewum Sénégal ay aywa ba tey dañuy des ci semaine buzz waaye nag bi la yoon dañuy wax waxu people ah, waxu people nag dañu koy dóoree mbirum Viviane Chidid Ndour mi nga xamante ne sax teg na tànkam amal ab tukkib nemmeeku ca Conakry mu mel ni sax ah, ba mu fa yeggee moom dañu ko dalal comme nañuy dalalee buur ñu nemmeeku ci sa ay homme de maanaam rek ñu yor kaaraange ga ak siblim bi nga xamante ne rek moom Viviane Chidid Ndour dal dina ko am ak séjour bi nga xamante ne rek dal dina ko def ci boobule dëkk di Conakry la di Jolof band nag Viviane Ndour mbooloo bu takku ñoom ñoo ko rek dalal ci weekend ba la ñu génne foofu ca dëkk bi ñuy wax rek Conakry mu doon nag mbir moo xamante ne moom Viviane Chidid Ndour dal dina ña yëkkati ay kaddu di xamle ne rek kontaan na bu baax a baax ci dalal bi nga xamante ne moom la ñu ko dalal ñi dem di photo ak moom ñii di selfie ak moom ñii di snap ak moom ñii tam ñi koy defal ay accolade ci boobu la aéroport mi nga xamante ne moom la ñu ko gàttandu moom Viviane di nduur ay wa mbokk yi ba tey dañuy des ci semaine buzz waaye nag bi la yoon dafa mel ni gàmbi Guinée moom moo nekk rek gox yi nga xamante ne artistes yu Sénégal yi ñu ngi dem ñu ngi fay dem ngir rek euh, wéyandi ci li nga xamante ne moom moo di rek seen i musique ndax fii nag euh, ci réewum Sénégal dañu aay rek lépp loo xamante ne moom moo jëm ci xumbute ana lan moo ko waral nag euh, woppub coronavirus bi tax rek ba ñu ajandi lépp loo xamante ne rek dafa jëm ci Mumbai ak Rumbai li ni mel rek a tax rek ba artistes yi nekk fii ci diwaanu Sénégal wutali ci góobule gox nag ko ci sax kii di Viviane Chidid nduur ak ki nga xamante ne rek moom moo di Wally Ballago Seck ba tey rek euh, Ngaaka Blindé mi nga xamante ne sax jamono ji euh, moom rek euh, mu ngi am lu suukar kafem waaye itam mu ngi duy gafaka ba mu fees dell ana ko waral clip yi nga xamante ne rek jamono ji mu ngi koy génnee muy def le tour du monde aywa mbokk yi ñu des ba tey rek ci li nga xamante ne moom moo di semaine buzz wax itam ba tey ci rek actu people àndaat ak ki nga xamante ne rek moom moo di Ngaaka Blindé ñuy xam leen sax ci Saint Valentin bi ñu nar ko am amal rek ci dimanche bi àdduna wërngal euh, képp maanaam rek euh, mbirum bëggante ci la fas yéene rek génne ak benn clip boo xamante ne mu ngi koy wooye rek bii min euh, fayit hawa góor des mu doon nag loo xamante ne instant yi jamono Sénégal waa itam askanu Sénégal waaye itam askanu réew bi nga xamante ne rek ñu ngi koy safoo moom Ngaaka Blindé ñoom ñëpp rek ñu ngi koy xaar mu doon nag mbir moo xamante ne mu ngi ko nar a fësal nekk ni suba ci dibeer gi bu ñu yeggee rek ci bés bu ñuy jagleel ñi nga xamante ñoom ñoo nekk ci euh, bëggante mu mel ni sax Ngaaka Blindé daal dina dégg rek ab mbëgganteem euh, fësal ko ci li nga xamante ne moom moo di rek ci euh, semaine fii la ci Kajom TV aywa ba tey ñu des ci li nga xamante ne moom moo di rek actu people waaye nag bi la yoon dañuy ànd ak njànku njànku mi nga xamante ne sax jamono ji ñëpp ko bëgg ana lan moo tax ñu bëgg ko dañoo ri rek wutali ko gannaaw rek moom njànku mu ngi def ay théâtre yoo xamante ne itam wa ilaa itam ay série yu neex yoo xamante ne képp ku nekk ci réew mu Sénégal yaa ngi ciy bëgg bu baax a baax mu doon mbir moo xamante ne nag jamono ji ñuy xamle ne njànku dafa takk ñaareel mu doon nag loo xamante ne benn aaw bugg ko waaye nag bi la yoon ki nga xamante ni moom moo di rek aw bu njànku dafa kontaan ndax rek euh, njànku nee na du bàyyi benn yoon rek euh, ki nga xamante ne moom moo di aawam da koy bëgg di protéger waaye itam da koy bëgg sopp gën koo jàppale ndax rek euh, nekk na koo xamante ne moom moo njëkk ci ay loxoom jural ko ay njaboot yu barkeel waaye itam di wax ne rek ñaareelam bi ñëwee na topp ci ginnaaw ki nga xamante ne rek moom moo di aaw bi ñu mun a rek jëmmal seen bëggante mu doon nag mbir moo xamante ne sax moom la ñuy buuralee lii di rek Semaine Buzz di leen di jaajëfal bu baax a baax yéen ñi nga xamante ne yéen a safoo Kadiom TV di jaajëfal sama réalisateur Almami Diédhiou waaye itam di jaajëfal sama caméraman Almami Diédhiou en même temps di jaajëfal ñëpp ñoo xamante rek ñoom ñoo a yemb di leen di jox dig daje naan leen des leen euh, defee saa ne rek euh, ngir seen mbég ak seen i kóolute ndax rek euh, seen doole mooy suñu doole ñu leen di jaajëfal bu baax a baax naan leen rek diaspora ak ñi nga xamante ñoom ñoo di ci diwaanu Sénégal jërë ngeen jëf cant ngërëm ñëwel na leen